مولانا محمد رسول الله وعلى كل آله وأصحابه وتابعي هدي إلى يوم الدين ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بالهدى والإيمان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gannaaw bu ñu sante borom bi subhanahu wa taala moom mi nga xam ne huwa ahlu sanai walhamdi walmajdi di ko ñaan mu wuutuñu ci santal ñu boppam di ko ñaan mu wuutul ci jullit ñu ci sayidna muhammadin sallallahu ak mboolem saxaaba yi ak taabiina yi topp ci njub ba bés pénc yàllaa ngi dogal ñu ngi nekkoon ci benn silsila ci silsilatu siiratu nabii sallallahu alayhi ñu gis ne fa tabaarakallahu indi nañu tabaabia yi nga xam ne ñoo nekkoon yaman yaman moo doon nguuru arab yi ci cosaan looloo tax kii déglu dina jaaxle nan lañuy jële siiratu nabi sallallahu alayhi wa sallam leeral ci yaman ba colonisation yi fa mujj am ci éthiopiens yi nga xam ne ñoo fa duggoon jiital Ariat ak Abraha ba Abraha mu jaray Ariat Abraha tabax benn xullays bu mag yamatu ci mu am yéene toj kaaba gële nga xam ne yàllaa ko xormal bay ci xew yépp dégg nañ ko ba Sayfu ibnu Ziyazan jëm ci malikul xiira di Nu'man ibnu Munzir yàlla dogal Nu'man ibnu Munzir fexe ba yóbbu ko ci al-Kisra mi nga xam ne moo doon amiru wala moo doon amiru Faris ñu introduire que amiru Faris di Kisra boole ko ak Wahrez Wahrez moomu ànd ak prisonniers yi nga xam ne daanaka rey rek moo waroon ci ñoom ñu def leen ci juróom-ñetti gaal ñaari ñaari gaal yi lab ci géej gi yeneen juróom-benn yi yàlla àtte ñoom ñoo mucc ba dugg yaman ci àddan ci sud bi xeex tabaarakallahu ak masruq mi nga xam ne moo doon noon yak suum te ñoom ñaar ñëpp ñuy doomi abraha loolu itam di dëggal gént gi sateex waxoon ak seqi ci ne ñu ñuul ñi dinañu coloniser yaman soixante dix ans bi mu matee sayf ibnu zi yazan ànd ak wahras ñu rey masruq moomu ñoom ñu coloniser nag yaman yaman moom boppam ci benn côté Euh, mu doon coalition entre ñoom ak Perse yi ala kulli xaalin foofu nag dañ koy bàyyi ndax yaman léegi taxaw na waaye dañuy delluwaat xijaas bi nga xam ne nii moom lañ waxoon ne Seyduna Ibrahim moom la sampoon Seyduna Ibrahim moo ne woon rabbana inni askantu min zurriyati bi waadin gayri zi zarin yu mu fi jógee bàyyi fi Seyduna Ismail mu bàyyi fi Naabit naabit nag euh, ay ndijaayam am ci moom influence muy jurhum ba amr ibnu madaad al jurhumi yi mujje donn kaaba gi di ndijaayam mujje gi nag awlaadu jurhum di donnante kaaba gi di ko donnante ci diir bu yàgg nag waaye comme ñoom ay yonent nekkul ci ñoom te sayduna ibrahim mi sampoon kaaba gi rabbana li yuqimu salaat la ko defoon pour ñu fay julli di fa jaamu yàlla ñoom loolu animé leen ñoom waa jurhum ñu def ko nag patience def ko euh, tabaarakallahu bës man maay maay kilifa gi maay xalifa gi ñu nekk ci yooyu ba mujj gi yàq gu metti am ci seen diggante ñoom jurhum loolu nag jur seeni cousin yi nga xam ne ñooy banu xuzaa ndax wax naa leen ni ci yaman lañ jóge mais rabiatu bnu nasr bii nga xam ne moo génnoon yaman di buur mbooloo topp ko xuzaa ñoom taxazau minhu dañoo xoñcati ci ñoom ñoom beru kaaba ga ci wetu makka ñu tuddee leen alxuzaa mooy ñi beddee ko ñooñu nag ñoo gis waajurhum commencer di fowe néeg bi di fa def lu leen neex ñu xeex ak ñoom comme xeexu doomu baay ba fexe récupérer kaaba gi ci ñoom rey ci ñu bari yilif ko nag bi ñu koy yilifee euh, nekk nañ fa sëriñ bari ñu ngi wax ne am nañ fi juróomi téeméeri ak ci kilif kilifteef googu nga xam ne ku dee rek keneen tabaarakallahu donn la waaye dafa am ci seen reñ lu xaw a dew yaram te loo xam ne mu gën a répercuté ci gannaaw ba daanaka jamono ji yonent bi di gane àdduna mooy ku ñuy wax amru bnu luxay alxuzaa'i nga xam ne mutaaun la wun mutaaun la fi qawmihi amru bnu luxay moo doon président wu waa Makka ci seen jamono dafa bari woon alal nag waa xusaa ab bëgg ko di ay bokkam waa màkk itam bëgg ko ndax moo leen yilif kaaba gi nag bi ko fi bàyyi ibrahima bàyyee ba jamono yooyu dafa farataal ci ñoom ñuy aj ak rit yi nga xam ne nii moo fa nekk ci wàllu xeetu aj euh, waa ji dem bés Sham muy Amru bnu Luhay alxuzaa'i bi mu demee Cham gis dëkk ba yaatu lool grande ville la parce que boobu siri grande ville la te ñoom Makka ci euh, daanaka primaire rek lañ toll euh, muy xool nag taqaaliidu nit ñi ak aada yi ba gis ay nit ñu samp ay xërëm di leen jaamu moom seetlu na ne ñu ngi koy jaay mais doo xam lu mu doon xamul ndax aar la wala lu mu doon mais gis nañ nit nit ñi defal ko yitte mu leer mu laaj leen ma haada lii mooy la ñu ne ko haadihi asnaamuna lii mooy suñu xërëm yi nga xam ne nii euh, moom la ñuy euh, moom lañu ame mu ne limaza pour lan mu ne nataabaduhu wa nastasqihi wa nad'u bihi wa naqdi bihi xaajaatina dañ koy ñaan suñuy soxlo di ko jaamu di barkeelu ci moom di ci faj suñuy aajo moom amru bnu luhay alxuzaayi ne leen awa yastatiuuna zalik ndax ñi mën nañ loolu li ngeen wax yëpp ne dañ koy def mën nañ ko mu ne waawow dëgg la sax yàlla ju mag ji mooy allah ñu ñun nastashfau bihim dañuy barkeeloo ci ñoom di ko jaare di ko defe tawassul ci ñoom pour ñu yeggale ci yàlla képp koo gis muy jaamu keneen ku dul yàlla boo ne ko loolu du yàlla dana lan xam naa ko mais dama bëgg mu gën ma jegeel yàlla ba ci ñi ne dañu am sëriñ koo ci gis boo ne ko sëriñ bi du yàlla mun ne dëgg la mais moom laa doxale sama digganteeg yàlla yàlla amul kenn kuñ fay doxale yàlla moom ahadun la as-samad lam yalid walam yuulad walam yakul kufuwan ahad amul kenn kuy julli ne kii julli gi dama koy doxale sama digganteeg sama sëriñ pour mu yeggale ki ci amul yàlla moom mi bind te doxalewul dara sa digganteeg moom lu tax boo koy jaamu nga fay doxale keneen ñoom loolu lañ daan wax haulaay sufaauna inda allah ñii ñoo ñuy ràmm suñu kanamu yàlla suñu suñu digganteeg suñu borom loolu nag séduire que ko mu ne doo ma ci jox benn ñu jox ko ci benn bu mag boobu moo tudd hubal mu indi ko nag teg ko ci géléemam indi ko màkk ñàkk lu muy def ñëw ba ci digg kaaba gi mu sànce ko fa waa màkk yu nekk lii lan la mu ne dama dem Saam gis fa lii nangam nangam te ñoo ñoo ñu gën a xam diine euh, kon dañ fi teg lii pour nangam nangam comme bari na alal nag te soxla bu bu nit am mu faj ko xalaat nañu ne ku ko fi opposé boo watul di nga am soxla bés du la ko fajal ñu nangul ko ngir ñàkk pexe keroog la kaaba gi njëkk gis xërëm goo xam ne ñu ngi ko fay jaamu min dunillah ci amru ibnu luhay alxuzaa'i keroog kaaba gi bu ma doon wax te mu ngi doon wax jooy na jooy yu metti loolu nag duré na ay siècle après ba ci yow mu fatxu makka lay doog dañan kon kaaba gi enduré na ci ay metti muy bërëb bi gën a sell ci àdduna barab bi gën a tedd mais ñu ngi fay jaamu min dunillah lu dul yàlla loolu dem na siècle ñaari siècle ba histoire yi ñu war a nettali dana ci feeñ ba nga xam ne daanaka moo jur euh, fatxu makka geneen bi yàlla wàccil ko al alquran qul jaa al alxaq wa zahaqa albatil inna albatila kaana zahuqa bu ko waxee ci sawtu bi mu yar bi mu yor bu ko dóoree xërëm rek dafay daanu ci suuf te loolu kéemaan gu rëy la ndax am na ci xërëm yoo xam ne ñoo ëpp bâtiment te métal lañ leen defare woon waaye yonent yi bu leen bu jàngee aaya boobu dóor leen ñoom ñëpp dañuy daanoondoo amru bnu luxay boobu nag nga xam ne moom moo sos jaamu xërëm ci kaaba gi ñoom awlaadu ismail lañ woon jural na ko nag ay conséquences néfastes yonent bi bim ñëwee la ne raaytu amru bnu luxayin eh, fi nnaari yajurru qusubahu fi nnaari ay amaahu yonent bi nee na bi ma visité jee safara gis naa amru ibnu luxay alxuzaayi muy diri ay butitam ci biir safara c'est-à-dire lahu ismu kullu man abada al asnam euh, fil kaabati ndax moom mooy gàddu moom mooy gàddu bàkkaaru képp ku jaamooti xërëm ci gannaawam euh, ci kaaba gi ndax moo ko fa jëkk indi léegi nag bañ ko fa indee ñu comme amr ibnu luhay al xuzaa'i la biiru xuzaa la bokk automatiquement famem dañuy gis ne ñoo ëpp daraja ci dëkk bi ndax seen kilifa moo fi indi xërëm ba yàgg yeneen famille yi banu kilaab ne ñoom it dañuy ut ñoom seen xërëmu bopp ñoom ñu ut seen xërëm beneen giir utaat seen xërëmu bopp beneen giir utaat seen xërëmu bopp mais bu ci am sa xërëmu bopp bala ngaa yëg na dëgg dëgg dëgg am nga xërëm bu am daraja nga yóbbu ko ba ci digg kaaba gi ci euh, ci óol bi noonu samp ka fa ñu naan haada sanamu bani fulaan xërëmu ya euh, famille tel a ngi nii xërëmu waa njaayeen a ngi nii xërëmu waa njóobeen a ngi nii xërëmu waa mbayeen a ngi nii xërëmu waa sàmbeen a ngi nii noonu lañ ko doxalee bu ko defee famille bu ne bu ñëwee xërëm xërëmu boppam lay jàpp nga gis ne kon xërëm lu yaatu la foofu idolâtrie euh, ba yonent bi sallallahu alayhi wax ne képp koo xam ne faatu nga Euh, day jaamu xorom yàlla ne jël dog bu rëy sedd ci amr ibnu luxay xadis bu wér la buxaari nettali na ko ci xadisu abi hurayrata radiallahu anhu kon loolu moom mooy xew-xew bi nga xam ne moo xew ci foofu ñu nekk fa nag ñoom itam ci diir bu yàgg ñoom xusaa ndax bu dee am na ñu ne ñetti téeméeri at la am na ñu ne déedéet juróomi téeméeri at alaa kulli xale yàgg na yàgg ci caay-caay yàgg ci mbon ba Amru bnu Luhay mi yegg ci caay-caay di jël nag ay xale yu jigéen yi dàq ci dëkk bi di leen jox rendez ci kaaba gi guddi di fa moy ak ñoom yàlla loolu nag fa la raay bi yem raay moom bu téenee rek moom oto du dawati oto raay du dawati yàlla nag ci la yabal fa tabaarakallahu euh, euh, ci la yabal tabaarakallahu ñeneen ñoo xam ne nii ñoom ñoo mujj jeexal nguur googu amrunul jurhum yi afwan moo doon mooy yàlla ci kaaba gi yàlla xiir waa xuzaa ñu jël ci ñoom lool euh, amru bnu luxay ñaari amru la alxuzaa yi li mu ñëwee ak melokaanam yooyu <coughs> yàlla rey ko ko yàlla reye nag góor gi xulay li moo mujj donn kaaba gi comme nag ismaila faatu na bàyyi fi naabit mu bàyyi fi banu jurhum ñuy donnante ba ci jurhum amru boobu doon def caay-caay boobu bi ñu ko jëlee ci moom kaaba gi mu mer comme moo yoroon caabi caabi yi mu dem ci kaaba gi guddi ubbi ko am na ay valeur précieuse yu fa nekkoon mu jël ko lu mel ni ñaari kéwél yoo xam ne dañ koo xob ci wurus ñaari jaasi yoo xam ne dañ koo xob ci wurus ak ay mbubu koŋ yoo xam ne dañ ko xob ci wurus buur bu ñuy wax saabur ñi ne saasaan alfarisi moo ko mayoon kaaba gi ngir ormaale ko ko ñooñu ñu dencoon ko ci kaaba gi ma doon valeur bu doon tey ay millions yu du dul jeex la amru bii aljurhumi ne man dina bokk ci ñi nga xam ne lekkuma ci cere ji waaye duma dama ciy sotti suuf bàyyi ba guddi ba nit ñi tëdd mu jël nag euh, valeur yooyu xam na ne mënu ko rawale ndax dafa xaw a dis mu demaat fekk liquide précieuse bi nga xam ne moo gën a valeur ci àdduna muy ndox muy zëm-zëm bi nga xam ne naa Jibril moo ko bëttoon mu ñëw fekk teen boobu dugal ci nag yi kaste ko ko ba pare jël lu mu man ci ay xeer ak i suuf euh, kaste ko avant fajar ba nga xam ne teen bi mel na ni ab yoon bu ñuy romb lu luñ ko doon xàmmeewee rek mu dindi ko ba pare nag bi nit ñi yeew fajar mu jël euh, tabaarakallahu gëléemam génn dëkk bi ne billaahi xam naa ne duma ko jariñoo waaye yéen it ko jariñoo dem dëkk bi nag di wër teen bi xam naa ñoom it gàtt nañ xel ndax foo daan roote xanaa luñ ko dindi dindi war ngaa mën a lijjanti ban koñ la ne waaye ci coobare yàlla nga koy delloo muy wër ba xusaa a ñëw ñu nekk fa ba amru lu loxo yi al xusaa yi ñëw fa def te yooyu mu fa def abnaaw ismaila di nga laaj <clears throat> muy doomu ismaila yi fu ñu nekk nekkuñu fenn lu dul di taxawaalu ci dëkk yi parce que jël nañ seen nguuru maam bi ismaila ay sëtam di sët di sëtantu ba ba ci adnaan adnaan moomu nag la yonent bi ne boo leen limat samay maam digganteem ak ismaila na ngeen yem ci adnaan ndax min adnaan kazabat nasaabuun ñi jàngale xam-xamu nasab yépp Euh, ci Adnaan lañu euh, euh, juumee ba tax na ibnu Isxaaq mi nga xam ne ulamaaw siira yëpp nee nañ kullu naasi li libni Isxaaq moom moo wax ne Adnaan la fa weesu yëpp ci ay maam wérul mais li wérte woon daal mooy àddinaan xam nañ ne moo jur Nizaar Nizaar nag dafa jur. Eh, ah, xaw ma Adnaan moo jur Maad Maad jur Nizar eh, Nizar afwan Adnaan eh, moo jur ñetti doom dafa jur ku ñuy wax Mudar ibnu Nizar jur Rabiat ibnu Nizar jur jur ibnu Nizar ku xam siiratu arab di nga xam ne ñetti giir ñi bari ay problème ñetti nit ñu bokkoon ndey ak bàyyi lañ mais kenn ku ne da nga jur giir masalan ñii jur njaayeen yi ñii jur njóobeen yi ñii jur waa saareen yi ñu nekk nag ci benn cousinage bu ne kenn xamul lu mu doon mudar mooy képp koo xam ne bokk nga ci giiru yonent bi sallallahu alayhi wa mooy képp ku bokk najat ak yamaama looloo tax musaylimatul kazzab ci rabia mii la bokk waa yamaama biñ ko toppee ñoom ñëpp daje nañ ci moom ne que in fa innana naalamu annaka kazzab wa innaka taalamu bi annaka kazzab walakinana sad euh, euh, euh, kazzabu rabia xayrun minna min sadiqi mudar xam nga lii kenn xamul la waaye maama dañ dañ dajeeg rabi musaylimatul kazzab nekk yow yonan nga mu yonante nga mu ne waaw mu ne xanaa jibril dafa gëj a ñëw mu ne effectivement dafa gëj a ñëw jekki-jekki rek mu ne ñëw na léegi rek ñu nekk lu mu wax mu ne nee na al wabar mal wabar lahu udunaani wa shiar wax a wax ba àggal nit ñi ree daanu suuf nekk ñun waa rabia yëpp xam nañ yow fenkat biir nga ñun xam nañ ko ko dëgg yàlla yow mii di wax itam yow xam nga ne da ngay fen yow te fen bi gën a metti mooy yow mii fen nga yëg ne yow xam nga ne dangay fen nit ñi xam nañ ne da fen ba pare bàyyi woo fen yi xam loolu dafa metti ñu ne ñun waa Rabia xam nañ ne da ngay fen wax dëgg yàlla yow sa bopp yow miy fen xam nga ne da ngay fen mais dafa fekk euh, euh, këzaabu Rabia maanaam fenkat bu dëkk ci suñu giir bu bokk Rabia xayrun lana moo ñu gënal min saariqi mudar ci wax waxkatu dëgg bu bokk ci mudar te muy yonent bi xam nga ñi kon diine taxatul ñu jóg problème mu famille ñooñu awlaadu nizaar lañu mu bar ak rabia ak anmar euh, am na ñu ne déedéet am na beneen ñetteelu doom bu ñuy wax iyad iyad ibnu nizar ala kulli xaalin kon bu baree ba bari nizar moom nga xam ne ibnu adnaan la euh, ibnu maad ibnu ñetti doom la am euh, mais ñooñu mudar la ci yonent bi sallallahu alayhi génne moo tax mudar doon sangu giir yépp tabarakallahu mudar moomu nag di maamu yonent bi dafa am doom ju ñuy wax ñaari doom rek la am mudar muy ku ñuy wax Ilias ibnu mudar ak ku ñuy wax Aylan ibnu mudar Ilias mii nag kéemaan la parce que ci jamonoom dañu wax ne bu daan tawaaf kaaba gi bu waxee labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak bu noppee day déggaat ci ndiggam koy waxaat wax ju gën a set ji bu wax naan labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak ndekete leeru yonent yàlla muhammad bi ne ci moom mooy tudd boroomam noonu Ilias moomu ñetti doom la am ku ñuy wax mudrikata mooy maamu ci bi ibnu Ilias ak ku ñuy wax tabixatu ibnu Ilias ak ku ñuy wax xamatu ibnu Ilias seen yaay mooy xindif benn jigéen la boo xam ne yaman la jóge woon nga xam ne kon yaman yàgg na ñoo doon di yaayu waa Quraysh euh, mudrikata nga xam ne ci euh, maanaam xusaa bële ñu doon wax ñu ngi jóge ci Ilias boobu muy seen maam ñu continué ci ay maamam nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku mu ci jël ci ay maamam di nga gis ne kéemaan lay doon euh, ndax kële kinaana euh, moom lañuy ñuy jiiñee Quraysh kinaana ñoom ñoo yilifoon waa ka euh, kaaba gi ñoo yilifoon ak sadana ñoo yilifoon fa tabarakallahu yooyu nga xam ne moo jur seen prestige yu rëy yooyu ñu naan ndamoo ñuy jurante maat moomu maat ibnu nizar dañ wax ne dafa am bés yàlla yebal buxtu nasara ci aalam al falastini yàlla junj na ko ci suuratul isra ndax boobu bàkkaar yi bari na rakkaaju gi ëpp na yàlla yebal buxtu nasara pour mu yar leen surtout nasara boobu moo dem di rey nit ñi di rey nit ñi ba ak si ci Maad ñu rawale ko dañu wax ne yàlla moo yónni ñaari malaaka yu ko këf yóbbu ko Saam am ñu ne déedéet Adnaan bi ko jur ci boppam la loolu amoon waaye ala kulli yi werante nañ ci ba mucc ci maamam yi ku ñuy wax kilaab kilaab dafa sëy ak benn soxna suñu wax fatimatu bintu saadin ibnu seyl am ak moom ñaari doom dafa taawloog moom ji góor gu ñuy wax zuhrata zuhrata góor la te arab zuhrata jigéen la ko daan faral di tudde zuhra mooy fleur Euh, mais zuhrata bi góor la bi mu feree soxna si Fatima ibnu Saad ibnu Seyl ëmbaat góor mu tudde ko Qusay Qusay Abdul Uzza la tuddoon Qusay mi ak zuhrata ñoo bokk ndeeg bay quelques mois nag góor gi faatu moom Kilab bi Kilab faatoo soxna si toog diir am ku ñuy wax zarraax rabiatu rabiatu bnu moo ko takk bi mu ko takkee yóbbu ko mu sëy ji ci famem bi muy dem comme doom bu góor bu mag bi di zuhrata màgg na mu bàyyi ko foofu ci ay baay baay tëxam ak ay cousin wam doomam jii di doog nàmp nag mu yóbbu ko euh, zuurata moomu nga xam ne mooy magu xusay d'ailleurs ñaar ñooñu ñoo ko ndey ak baay yàlla dafa du juum yëg nga ne ku mag ki moo jur aminatu mooy maamu aminatu aminatu bintu wahbin ibnu abdu manafin ibnu zuhrata zuhrata mooy maamam yent yàlla muhammad xusay mii mooy maamam ndax ibnu abdullah ibnu shaybati ibnu hashim ibnu abdul mutalib eh, eh, eh, ibnu xusay ibnu hashim ibnu xus euh, Abdou Manaf ibnu Qusay kon Qusay ak Zuhrata ñoo bokk ndey ak baay te ñoom ñaar ñoo war a jur ki gën ci mbindeef bi ñu yóbboo Fatima moomu ibnu Saadin mu dem sëy ji ci euh, euh, rabiat ibnu Zarrah yàlla dogal mu am ak moom doom foofu doom boobu mooy Zarrah ibnu Rabia mu màgg fa nag moom xale bu góor bi ba mu jégi mu sentir benn discrimination bu am ca dëkk ba bu ñuy foo xale yi sax ba mag ñi gis ka dañ naan kii da haala xusayun kii doxandéem la kii dafa yi dëkkul fii doxandéem la di ko wax loolu ba pare di jël rakkam di ko jegel te ñoo ko benn yaay ba yàgg nag xale bi bi muy commencé am dix ans yëpp ni ko waa dëkk bi di di di di di di di bàyyee ngir bokkul ci ñoom te arab dafa gëm ak mbokk lool lool mu ñëw ci yaayam Fatima bintu Saadin ne ko man daal dëgg dëgg yaay mu naa mu ne ko man daal ma xamul lu ma dal mu ne ko ah mu ne xanaa man aw ma mu ne ko ay doom yaa gën ci àdduna sa famille gën ci àdduna mu ne ko dama gis pénc mu ma dugg ci dëkk bi ñu may xeeb di ma toroxal naan kii doxandéem la doomu doomu doomu doomu doxandéem la naan xusayun euh, loolu daal metti na ma metti na ma lool yaay ji ne ko doom da xamul mais xam nga di ngay dégg nabiyullahi ibrahima mu ne ko waaw mu ne ko mooy sa maam kuy jaay maam ak deret ju tedd yow lay dimbali xam nga ku ñuy wax ismaila mooy sa maam gi ngay dégg kaaba gi ngay bi nit bi arab yii même sa mbokk yii di dem di aji ji par at mu ne ah mu ne ko yow yéen yéen a ko moom yéenay kilifa xale bi nag ne waaw nan laay bokkee ci askan wu màggee noonu ñu bàyyi ma ci àll bi ñu may toroxal damay dellu samay mbokk mer ba mu jógee foofu takk ay bagage am yaa ji ne ko du ma sa frère a nga fa zuhrata ñu ànd a dem ba ñu demee mu xool dëkk bi comme yaay ji li mu ko wax nag fikir na ko te wax na ko ne yéen yéen moom foofu mu ñëw nag fekk ñoom moomuñu fa ndax waa xuzaa ñoo fa nekk waa xuzaa ñooñu fa nekkoon nag ngir biyewu amru bnu luxay alxuzaa yi mi fa indi ay xërëm ñu ngi donnante kaaba gi ba agsi ci góor gu ñuy wax xulay ci coobare yàlla nag xulay li mi amul doom bu góor te ñoom li ñu baaxoo mooy président bu dee doomam donn ko ku dee doomam donn ko góor gii fi mujj nag màgget na d'abord te amatul doom bi yi ñëwee ne moom daal wax mag ña fa nekk ci ay doomi baayam ak ñooñ ne leen man daal benn projet la am mooy récupérer waat mu suufu maam yi mag ñi nekk mën na nekk du jafe waaye bul tuur deret dinañ la indil benn xalaat boo xam ne boo ci jaaree dina yomb lan la mu ne góor gi di xulayl alxusaa yi yàlla dafa dogal màgget na te moo yilif kaaba bi te ñoom seen aada ku dee sa doom bu góor moo lay doon te yàlla dogal na amul doom bu góor boo ñëwee nag xamal ko nekk dama bëgg don jëlaat sama ndonay maam Ismaayila problème day am parce que dañuy xeex ak yow bu boobaa doo ci jot waaye comme moom benn doom bu jigéen rek la am muy xubbee bintu xulayl alxuzaaiya da ngay fexe nga dem mel ni ku yëgul li xew fexe fexe ba labat doomam mu may la ko bis bu la ko mayee loo am ci alal na nga ko defal ngir seral ko ba ba xelu góor gi dal xam nga léegi princesse koo ko takk kay yow looy tudda prince ngay tudda mag ñi ne ko lii moo gën a gaaw pour wan na ne xel mu rafet yàgg na ci àdduna bu dem ci xulay li présenté boppam mu nekk akun karim ibnu axin karim taf ko ci dënnam mu ne ko daal man daal Euh, princesse bi laa bëggoon sa doom bu jigéen moo nekk ah war nga koo mën a takkale ndax tabaarakallahu fi nga bokk ñu waxtaan ba d'accord mariage bi am Xusay euh, euh, moomu nag nekk rek taawu góor gi di ko taxaw rek lu góor gi bëgg a mook moom ba góor gi xëy dee ñu denc ko biñ ko dencee nag ñëw waa banu Xusaa bëgg a toog mu leen du am nag ndono li dafa dellu si ci borom dañuy delloo buub ci boy boy ñu nekk du fi amee ñun waaxu waa a ñoo yilif fii mu ne du am kan moo sañ sa dëkk bi ñu ne euh, góor gi Ibrahima mu ne kan la jur ci yéen ñëpp sëgg ana Ismaayila ku mu jur ci yéen ñëpp sëgg maay doon coow li bari mu woolu ji nag fami ndeyam Zaraax ba nga xam ne ñoo bokk benn ndey te muy rakkam oolu famem ñu ñëw bi ñu xamee ne waa ji nag am na ñu ko topp am na mbooloo def nañu sax ay munaas naawashaat xeex nañu tuuti ba deret génne ba ñu xam ne xusay fowul ci lañ dajawaat nag ñoom ñëpp ci amir ibnu zarib ne daal dañ bëgg a attee ndoom moom moom nag xakim bu mag la woon mu ne leen ndax lu ma leen dogalal di ngeen ko d'accord ñu ne waaw mu ne dama leen yëgal ne fii kilifteef gi xam nga gouvernement bu ne dafay am ay tâche ay ministère Euh, Makka nag bul foog ne dëkk bu rëy la déedéet quelques centine de d'individus ñoo fa nekk wala quelques milliers bariwuñu ndax ba bi yàlla yónni yonent bi deux cent mille personnes rek a fa nekkoon kon gros village rek la woon mais ñoom foofu la fay seen titre lii la mooy alxijaaba mooy kaaba gi ci boppam dafa am ñoo xam ne nii maanaam ñoo yor entretien wu kaaba gi di ko solal ay yére di defar rideau yi di defar yooyu nga xam ne ñooñu ñooy indi parfum yi di defar ak yooyu loolu nag bul ko xeeb budget bu rëy la woon ndax ña ca nekk rek dañuy tedd ñaareel bi moo di siqaayatul bayt mooy ñi nga xam ne ñooy gérer ñii aj si lan mooy seen naan lu mel ni ministère de l'hydraulique euh, beneen bi ci des mooy tanzimul euh, dawla mooy nan la ñuy organiser administration wu dëkk bi diw def na lii nan lañ koy def diw def na lii nan lañ koy def ñu waxtaane ko ci pénc mi ñett yi ñoo fi nekkoon ñu ne waa Xuzaa nag ne kon dañ koy séddoo euh, xam naa ak waa religieux yi mooy ñi nga xam ne ñoo amee xërëm yi di defar ak cuuraay ak ñàkk fayda yooyu yooyu daal ci lañ nekk moo fay ay tâche yoo xam ne yu am solo la ci ñoom bi ñu waxtaanee Eh, amir ibnu garib ne ñi ma gise mooy kaaba gii ngeen xëccoo maamu kan moo ko fi def ñu ne ko xanaa ibrahima mu ne kon du seen maam yéen waa xusaa ñu ne déedéet mu ne delloo leen ko borom xusay ah ñu ñu noyyu noyyu gu foor ndax déception lañ am bi des mooy kaaba gi ngeen wax ni dañ koy muur ak entretien bi ci ne maamu ku ko fi tabaxoon ñu ne xanaa Ibrahima ak Ismaila mu ne yéen yéen la jur ñu ne déedéet ñu ne kon delloo leen ko borom waaw zam-zam bii nga xam ne xëy na dindi nañ ko zam-zam dindi nañ ko waaye lépp lu jëm si si muy nandal gan yi yéen gan yi ganu ñan lañ seen maama leen oo ñu ne déedéet du Ibrahima moo leen oo kan la jur ci yéen ñu sëgg mu ne kon al siqaayatu wal xijaabatu wa sidaanatul bayti yépp delloo naa ko. Euh, tabaarakallah xusay euh, waa xusaa ay yuuxooloo ngir déception waaye mënuñ ci dara xusay moom nag bi mu toogee te mënuñ mënaluñ ko dara ndax itam seen goro la ndax bul fàtte ne princesse bi di xubbee xubbee bintu xulayl alxusaaiya ci ñoom la bokk kon soriwul leen mu am ci nag ay doom ci ëpp solo mooy Abdou Manaf abdu manaaf bii nga xam ne shaacir bi dafay wax ne kaanat qurayshun baydatan fa tafallaqat fal muxu xaalisuhu li abdi manaafi nee nañu quraysh ndax wax dëgg yàlla comme xusay abnaawu ismaila yi dañoo tasoon dañoo tasaaroo woon fu nekk ab pàcc jëm fa léegi kon bu ñu amee ku yorewaat nguur gi effectivement doom ba muy jur day mën a fédéré dëkk bi yépp moo tax Abdou Manaf la fédérateur lañ ko tuddee dañ ne kaanat nekkoon na Qurayshun baydatan doon nen boo xam ne nii nen la dëgg la ñoom nen lañu valeur fa tafallaqat waaye bi mu tojee fël muxu jaune ba nga xam ne moo ëpp solo ci nen ëpp ci vitamin xaalisuhu ci gën caa sell Abdou Manaf moo ko jël mais Abdou Manaf itam euh, majmaul bahrayn ni lay doon parce que xusaa ñi yilifoon dëkk bi ay ndijaayam lañ de même que euh, euh, mu ngi bokk ci Ismaïl kon Abdou Manaf fédérateur lay doon bi ñuy xewee nag waa Màkka ci lañ def délégation ñëw nag ci président bu bees bi muy góor gi Xusay ibnu Kilaab ne ko daal benn doléance lañu am mooy ndox jëkk bi wow na torop te tàng na quarante cinq degré boo amul loo naan xamu foo jëm bëgg nag nga wutal ñu ndox mu wut ay projet des def na ca la mu man dee ba mu faatoo doomam jël nag ndono lii muy góor gi Abdou Manaf nga xam ne stabilité dina am ndax banu xuzaa buñ ko gisee bëgg banu xuzaa nag maa lay yëgal ne tàggoow ñoog Abdou Manaf tàggoow ñoog Hachim tàggoow ñoog Abdou Moutalib tàggoow ñoog Abi Talib ba ci yent yàlla Muhammad keroog fatxu Makka ñoo àndoon ak moom ñoom xusaa ndax boo ko waxee mu ne ah kii kat suñu doomu euh, tabaarakallahu jigéen la ñoom arab noonu la ñuy waxee Abdu Manaf yàlla dogal mu am soxna am nag ñeenti doom yu tedd ñeenti doom yooyu nag mu moo tënk histoire Abdu Manaf mu am ñeenti doom moo tax mu ne fa tafallaqat fal muxu xaalisuhu li Abdu Manaf dafa taawloo ko ñoom Abdu Shamshi Abdu Shamshi mii ak Hachim wulido wulida fi batnin waaxida ci benn biir lañ juddoo seen yaay dafa seex euh, muy Atika bi mu seexee euh, am euh, jur doom mu juddu muy Abdu Shamsi mais kii dafa juddu ba pare taq ci seex bi ñu ñu xëcc xëcc seex bi ànd ak moom ñu taqandoo ñaar bu ñu taqoy ci juddu nu ñuy def après hmm? duñ leen tàqale biñ leen tàqalee deret tuuru mag ña xam ne xaw ma lu xew waaye ñii seen diggante deret ju bari dina ci tuuru te ay seex lañ eh, deret ji tuuru nag arrêté wul ba tey diggante ñaar ñii la te ay seex lañ kat kenn ki mooy maamu ci yàlla Muhammad mooy maamu shérif yi ngay dégg yëpp ki ci des mooy maamu Ousmane ak Muawiyatu ibnu Abi Sufyaan Ousseynou mii ñuy màggal Karbala deret jamu tuur deret ji la woon ndax Zeyd euh, euh, euh, ibnu Abi Zeyd ibnu Muawiyatu ibnu Abi Sufyaan moo reylu Xuseynu Zeydu moomu nag koo koy maamam Zeyd ibnu Muawiya Muawiya jur Muawiya Abi Sufyaan jur ko Abu Sufyaan Harb jur ko. xarbu umayata jur ko umayata abdu shamsi mii moo ko jur mu juróomeelu maam euh, kii hashim mii nga xam ne moom la bokkal hashim moo jur abdu manaaf mu jur abdullah mu jur yonent yàlla muhammad mu jur fatima zahra mu jur xuseyna kenn ko ne sa juróomeelu maam deret jooju nag dakkul ba léegi ba fii may wax ak yow amawi yuuna yi ak euh, alawi yuuna yi ñu ngi turante deret ñu ngi saagante xataa même bu amagul ba tey histoire bi moom mu ngi fi des ba Karbala bu jot nga gis ñuy tuur deret amul ñun tuur deret ba tey Irak deret jooju yàgg la ala kulli bi mu juddoo ci benn biir ñu juraat soxna si amaat beneen doom bu ñuy wax matlab góor gi Abdou Manaf amaat beneen soxna mu jural ko ku ñuy wax nawfal xoolal nawfal mii nga xam ne seen doomi ndey la te et pour yonent yàlla Muhammad bis bu ko yàlla woowee siti nëwfal ñooy taxaw yonent bi autant ka ñi mu bokkal seen maam ndey ak baay wala woon ne deret amul njariñ lool lool pas-pas rek am solo Abdou Manaf jur ñeenti doom yu tedd yooyu muy ñu mel ni ay weer euh, yàlla dogal ñeenti doom yooyu ñoo mujjee doonaat cosaanu arab bi Abdou Manaf faatoo Hachim nekk fi eh, doon def commerce ndax moo doon loolu yàlla dogal Hachim dem eh, eh, doon def commerce ñëw ba Yesrib muy madinatu munawwara incha allah noonu la nar a tudde waa dëkk bi bëgg ko sopp ko na Haasim dafa rafetoon bari alal mën a teralaate moo tax ñu tudde ko turam mais amru la tudd amrul ala hasama sharida li qawmihi wa ahlu makkata musnituuna ijaafu Haasim mooy kuy séddale muy jóge ci hasama ay xasama séddale na partagé na moom nag da daan partagé day dem yaman siri day dem yaman walla Syrie jënd fa ay valeur ci commerce dellu Màkka fekk ñi seen doole néew mu di leen ko séddale bañ tudde ko séddalekat xam nga ni jikko jooju rafet na euh, moom nag la banu Hachim donn ba tey jii ñu ngi séddale ñam boo demoon tey Kaaba ga di nga fa fekk Hachim yi boo xam ne nii mu ngi séddale ay tàndarma yu mel noonu euh, tabaarakallaahu di jox nit ñi luñ doge Hachim nag bi mu jàddee Yasrib waa banu Najjaar waxtaan ak ñoom. ci xasraj naw buñ ko naw tax nag ñu ne ko lu mu xat-xat daal boo ñu mënoon nangul ñu may la suñu doom bu jigéen bii muy Salma an-Najariya ah mu ne leen man voyageur laa damay dem ñu ne ko d'accord waaye nag ku am jëkkër ju mel ni yow doo ko gëmi mu d'accord ñu may ko ko mu consommé mariage bi ab diir ne nag maa ngi dem lu ma demee damay yeggali sama commerce dellu si dinaa fi toog ba ci kanam bi mu demee ci yoon woowu la faatu ndekete bàyyi na ëmb ak soxna si mu judd doon xale bu góor rafet lool nag nee nañu bi mu juddoo dafa ëndaale bi jaaw am ñu ne déedéet rafetaay bu ëpp bi moo tax ñu xool xool xamuñu nuñ koy tudde te baayam ñëwul ñu tudde ko shaybatul hamdi lii itam liggéeyu yàlla rek la yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa dëkk bii maamam juddoo fi la war a gàddaay si te comme arab léppam mbokk la bokkoon nag ñii sax dëgg la yàgg na waaye foofu yàlla indiwaat fi mbokk gu jege muy salma an najariya moo jur doom e, ñu tudde ko cheybat alhamdi hashim dellu siwul ñu toog ay frère ñu ngi fële muy abdou shamsi muy nawfal muy matlab xale bi nag moo fa dund ba am fa juróomi at xaw a dëgg génn góor doon jóge Màkka di dem Sham parce que ci yoon bi la ma Madina nekk romb fa gis fa benn xale bu mel ni weer mu ne bu ma juumul deret naxuma kii du waa fii la dëkk woolu xale yi ñu ñëw mu nuyu xale bi yow foo dëkk di lim xale yi kenn par kenn kenn par kenn ba ak si ci kooku ne ko yow noo tudd mu ne ko xam di mu ne ko tur de raar na foo dëkk mu ne ko man fii laa dëkk mu ne ko ma wax ma dëgg ana sa papa mu ne ko man xawma ma sama papa mais sama yaay nena na ma waa màkk la mu ne ko du dañ yow Haashima la jur mu ne ko effectivement noonu la ñuy wax sama papa mu ne ko waaw kay noppil bu la kenn dégg nag bi mu demee Syrie dellu si toog ba euh, jox euh, ñi mu amee ameeloon seen marchandise seen euh, alal dafa wóolu góor gi matalab guddi matlab nag moom Haashim ñoo wax ndey ak baay mooy rakk ji ak Abdu Shamsi mu woo ko mu ñëw mu nekk ko gàcce mu ngi am de dabul sa doom bi mu nekk jan doom mu nekk ko yëgoone sa frère bi mu demee Yesrib dafa takkoon soxna mu nekk ko ko doon dikmati mu nekk nag bàyyi na fa doom doom bu góor bu rafet boo toogee ba mu màgg àlla pour récupérer ko dina la jafe te yéen seen askan bokku leen ci ñi ñuy sànni demal nga récupérer ji te jéggalu parce que foo am doom yónnee woo fa joxe fa ba xale ba màgg gàcce am na mu ne ko nëbbal ma ko nëbbal ma ko bu ko kenn dégg danaa fa dem bàyyi ab diir mu takk géléemam ànd ak quelques personnes dem euh, fële ci Yesrib dem ci Banu Najjaar nuyonteeg ñoom dem ci yaayu xale bi muy Salman nuyonteeg moom ne ko yëgoon nga ne Hachim am na ay frère mu ne waxoon na ma ko mu nekk nag man mii maag moom a bokk ndey ak baay mu ne ko niroo ngeen sax lool bu doon dund ma ne moom la li ma fi andi woon nag mooy récupérer sama doom ndax bëgguma mu màggee fii ëllëg ñu ñu koy xase mu ne ko nag du yomb du yomb waaye man d'accord naa pour nga yóbbu ko waaye na nga xaar ba mu waxtaan ak samay càmmiñ mu dem waxtaan ak càmmiñ yi càmmiñ yi ne ko du am gisuñu leen ba tey bii ñuy jël si xale bi duñ ko nangu coow li bëgg a bari xale yaay ji ci boppam di salma ënn jaar leen xanaa doom ji juratuma ko ñu ne ah kay mu ne maa jur man maa jël décision day dem bokk yi nag xamatuñu lu ñuy wax nekk ah ñun de bi ñuy wax ak yow défendre la moo taxoon comme nag yaa jël sa décision jëlal tampi lu ci xew nag muy noonu ñu d'accord waxtaan mu ne ko nag da ngay bàyyi ba guddi nga génne euh, da ngay bàyyi ba guddi nga dem mu bàyyi ba guddi ñu ànd dem cëre ñu ngi ciy nettali ay kéemaan yu rëy a rëy a rëy muy leer gu rëy goo xam ne génn na ci jiwu tabaarakallahu xale boobu di saybatul xamdi di fëyi fëyi ci àll boobu ci guddi googu góor gi di ko takk ak kaala ngir bañ leer gi leer gi leer gi feeñ mag ñi di wax na nag leer bu tojee kàng xam nga ne kaala du ko téye ñu dem ba agsi bi muy agsi nag makk bëccëg a jot treize heures et mu am gàcce gu rëy mag ñëpp toog ci pénc bi janoog buntu dëkk bi mu dugg rus na leen wax ne sama frère demoon na barab sàngam am fa doom moom laay indi si ndax la mu doon nëbb dafay gën a nëbb te séen nañ ko ba pare mu gestu nag xale bi ne ko bu la mag ñi laajee loo doon ci man kun abdan li muttalib na nga nekk jaam rek ci muttalib bu ñu la waxee da nga naan kii sama jàmm bi mu duggee ci dëkk bi ñëwoon teg moom ñu ne kii kan la mu ne haada abdi ci sama jaam la léegi nag baatu kun abdan li muttalibin moo moo moo mujj indi tur yi ñu naan abdul muttalib jaamu muttalib ndax bëgguñu ñu xam ne doomam la bi mu ñëwee nëwoon teg mag ñi ah waaw kii sa jàmm la mu ne waaw waaye xam ngeen ne xale boobu ku ko gis dina xam ne kii moo ëpp jàmm rafetaay bu metti boobu xam ne jàmm du mel noonu ñu dalal ko nag mu yóbbu ko ci këram yar ko moo tax góor gi Abdul Muttalib màgg ci njirim bàyyi tëxam nag yar ko mu nekk moom ba góor gi matlab moomu nag faatu bi mu faatoo jox ko nag ndonay maamam yi banu Abdu Shamsi banu tabaarakallahu matlab ak banu nawfal ñoom ñëpp ñoo daje jël Abdul Muttalib ngir naw ko ndax sûrement amee na valeur yi ñu amul ndax moom bokkuñu dëkk najaar ga mu dëkk nga xam ne ñooñu jàngale nañ ci gannaaw rek ne ba ñuy xeex ak rabiatu bnu nasr dañ daan xeex suba gi guddi gi ñu ñëw di teral kon jël na ci ñoom deret jooju deret deretu alkaram booleeg nag deret ji mu doon na ci maamam ismaila ñoom ñëpp ñu d'accord jox ko nag kilif téefu dëkk bi ne ko yaay suñu kilifa mi góor gi lii nattoom mooy amul ay frère ndax dëgg la hashim bàyyi woon na fi ay doom muy asad amoon na fi doom asad boobu euh, moo jur fatima fatimatu bii moo jur aliyu fatimatu bintu asad ibnu hashim euh, moom la ñu may góor gi abdul euh, abi talib muy doom bàyyam ñu jur seydna ali ak aqil ak talib ak jaafar ak tayaar waaye ala kulli xaalin ñii nii bàyyi na fi sax ay frère waaye daraja bi ko yàlla defal moom Abdou Moutalib comme amul mbokku ndey te mbokku ndey dafa fort looloo tax mu sentir ne dafa wéet ñu may ko nag benn soxna bu ñuy wax Salma moom it mu jur ci ku ñuy wax xaaris moo tax góor gi ñu ko daan woowee abal xaaris abal xaaris moomu nag nekk fa ñu jël kilifteefu dëkk bi yëpp jox ko mais gis na ne projet bu mu am nit ñi opposé ko. projet bu mu am nit ñi opposé ko ba mu jégi mu sonn ñàkk nag lu muy def ne yàlla billaahi bis boo ma mayee ba ma am fukki doom yu góor dinaa rey kenn ki jaamoo la ko ni sama maam defoon wax na musiba nag waaye loolu la bëgg te yàlla yooyu lay xaar yooyu boo ko waxee rek dala koy may léegi dina xool nag ndax yow la nga waxoon di ko def wala déet yàlla dogal mu ne ko boo ma mayee fukki doom dinaa la dinaa rey kenn ki ngir jaamoo la ab diir yàlla dogal ci mbaaxam mu am juróomi soxna soxna yooyu kenn ku nekk am ak moom ay doom euh, doom ju jëkk ji mooy xaaris bii ma wax am na góor gu ñëw abbas am na góor gu ñëw xamsatu am na ku ñëw abdullahi mi waral li xew mooy jur yoon ci yàlla muhammad am na ku ñuy wax abdou mooy abi talib am na ku ñuy wax zubayru am na ku ñuy wax xajl am na ku ñuy wax muqawim am na ku ñuy wax diraar am na ku ñuy mu siiw lool nga xam ne baaxul ñu koy wax abu lahab yàlla yemul ci may ko fukki góor waaye da ko mayaat juróom benn jigéen may ko ku ñuy wax safiyatu may ko ku ñuy wax ummu xakimin il bayda may ko ku ñuy atika may ko ku ñuy wax may ko ku ñuy wax arwa may ko ku ñuy bar yi nag bi mu dajee ci moom mu tëdd benn bés gént euh, laata doom yi di juddu mu tëdd gént dëkk bi bi ñu defee délégation ñëw ci moom fal ko introniser ko sant ko gërëm ko ne ko nag benn soxla rek lañ amoon mooy doléance bi ñu daan wax say maam ak say maamaat mooy ndox lañ bëgg ndox lañu bëgg wax ak moom ba seen yaram daw góor gi toog bu doon tey jii mu bàyyi ba guddi mu ñaan boroomam ci nam ka mane ko yàlla ñii nga ma dénk bu ma leen bul bul ma gàcceel mukk ci seen kanam may ma ndox naka la tëdd dégg ku koy wax ne ko oxfur Tayba boo xëyee na nga gas fu ñuy wax Tayba dëkk bi yëpp nag fu tudd Tayba ne ko mu gëstu di laajte fan mooy Tayba fan mooy Tayba ñu ne ko mbaat da nga dara dof mu tëddaat ñu ne ko oxfar euh, barra na nga gas fu ñuy wax barra mu xëy laajte barra barra xamuñu fuy barra mu tëddaat ñetteelu guddi gi ñu ne ko oxfur euh, madmuna demal gas barab bu ñuy wax mazmuna mu yeewuwaat xamul fuy mazmuna mu laajte xamuñu ko ñeenteelu guddi gi ñu nekk uxfur zumazim zumazim mooy zamzam euh, mu ne mais fan mooy zamzam mu ne ñu nekk ndoxam du ngiis mukk ndoxam du ngiis gas ko mu ne fan la ne ñu ne ko boo xëyee bàyyi xel liñ lay wax taxawal rek ci wetu kaaba gi di nga jékki-jékki gis ku jiital giléem jëm moom barab kooku topp ko fa muy tëral jërëm gi rendi ko dina dànd tuuti lu mat un mètre euh, euh, gasaat fa meneen pax moo xam ne nii fa lay sotti sébbarit si muy génnee ci gannaaw bi mu feesee ba pare di nga je boo jekki-jekkee di nga gis ci côté sud ba ci euh, benn paxu ay xorondom yu fay nekk di fo nga jekki-jekki côté noor bi di nga jekki-jekki gis fa benn picc mu weex tàll boo xam ne bayyinin weex tàll tàll booy taxaw rek dina ñëw di cof coflu diggante ñeenti koj yooyu nag muy fa ñu rayee gélém gi ak fa ñuy setti sotti sévérité si ak euh, néegu xorondom yi ak picc bi fa muy fa muy fa muy cof diggante boobu mooy cadre euh, teenu zëm-zëm na nga ko gas mu yeew ne lii doonatul gént doonatul gént jug dem xoolu xaaris bi nga xam ne moom rek la gisoon ci jamono ci ci doom muy taawam ne ko nañ dem damay gasi ji teenu zam-zam mu nekk ko papa luy teenu zam-zam ndax fekkew ñu ko ñoom ñëpp ba ka amrunil jurhumi di euh, euh, euh, sakk di sakk yàgg na waaye nit ñi dafa am lu ñuy fàtte mooy kan moo tax yàlla war a dekkalaat teenu zam kan góor gu mag gi moo war a juddu sallallahu alayhi wa sallam teenu zamzam ay siècle fattoon na parce que ismaila bi mu faatoo naabit moo fa ñëw giiru jurhum ñëw amrunil jurhum yi ñëw kon maximum teen bi bu dee sotti na itam ci téeméeri at lay toll mbaa téeméer rek dara toog na fi nag lu xaw a jege nangami siècle lu xaw a jege huit siècle yoo xam ne kenn xamu mais siècle bii di ñëw dafa am dëkk bi moo war am gan gu tedd gu ñuy wax yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon teen bi faw mu faw ñu faw ñu <laughs> faw ñu dindi ko demal nga gas ko góor gi xëy ak doomam dem di gas waa Màkka ne ko Abdul Muttalib foo jëm ci tàngaay bi amoon na nag benn benn benn wëjjëm boo xam ne doomu baayam la wax dëgg yàlla muy Mut'im Mut'im ibnu Nawfal Mut'im ibnu Nawfal góor la koo xam ne seen ñaari baay bokk ndeeg baay mais góor gi la defoon wujj euh, jubayr ibnu euh, jubayr jubayr bii ngay dégg wa mut'imun wa ubayun mut'im boobu jubayru moo ko jur jubayru nawfal moo ko jur jubayru boobu laay wax doomu bàyyi la defoon góor gi waaye wujj la ko def lu góor gi war a def mu ne ko doo ko fi def mu ne ko abdul mutalib foo jëm mu ne ko dama bëgg a gas teenu zam-zam mu ree nekk bi ñu nekkee xale lañ daan dégg ne fii masoon na am teenu zam-zam nga xëy na da koy gasi mu nekk man dama koy gasi ndax dafa am lu wax ak man te loolu laa gëm ñu reendoo ko mu rombaleen dem di gas mook doom ji di gas mook doom ji ba yàgg tayyu bi feeñ tayyu bi mooy pind bi ci boppam teen boo gis doo doo xëy rek yegg ci ndox mi mais di nga gis benn cadre euh, recadrement boo xam ne nii mooy doon pind bi ba mu feeñee rek mu kabbar kabbar googu mu kabbar nag moo dawloo Quraysh ñu ñëw nekk ko lu xew mu ne gis naa pind bi gis naa pind bi mu ne waawaw ñu ne pourtant wax na dëgg pourtant wax na dëgg nañ ko jàppale ñoom ñu ñëwandoo nag jàppale ko liggéey mbooloo day gaaw naka commencé di liggéey liggéey ba yàgg ndox ndox bal la bi ndox balle ñu ne pourtant wax na dëgg tëb nag góor gi jubayru boobu nekk Abdul Mutalib yow la ñuy waxal ñu ngi lay yëgal ne ndox mi ñun ñëpp ko moom bien commun la suñu maam Ismaïla moo ko moomoon mu ne ko suñu maam Ismaïla ba mu ko moomee itam maa ko gas maa moom teen bi ñu ne ko doo ko fi moomee ñoo koy moom doo ko fi moomee ñoo koy moom coow li bari ñu ne déedéet jaruñu ñu jarul xeex nun du ñuy ay jàmbur xam ngeen lu xew nanu dem xaybar xaybar daal dégg nañu kaahinatu bani saadin mu nga fa xaybar nag boo ko xamul dëkk la boo xam ne village la boo xam ne ay yahud rek ka fa ne te ku tudd juif yi tudd xam-xam am na fa nag benn seetkat boo xam ne ku yàlla may xam-xam la bu ñu demee ci moom insha allahu dinañu àtte ñu d'accord ne moo gën xeex bi ñu bàyyi gas bi bàyyi gas bi kat def délégation dem bi ñu demee ba ci digg àll bi xam naa dañoo dem ak dënn ndax ab tukki ku koy ku koy ku fay dem da ngay da waajal waaye demeeg mer yóbbuwul nit ci désert bi ñu demee ba ci digg désert bi seen ndox jeex seen naan jeex mënatuñoo def dara ñu commencé xiif di mar di xiif di mar ba amatuñu doole ju ñu continuer tukki bi ñu tëdd ba yàgg mag ñëpp waxtaan ne ni ñu gisee ci dee lañ jëm ñun ñëpp ndax dund ak euh, maanaam dund mu ngi aju ci lekk ak naan te gisatuñu lu ñu lekk gisatuñu lu ñu naan xam nga lu xew doole ji ñu jot a dese kenn ku ne na ci na ci na ci na ci sàkk gas bàmmeel gasal boppam bàmmeel pour bu deewee ndax kenn du am jotu man kaa suul ndax doole ji nekkatu ko léegi bu woo bu deewee kenn da koy këdd rek mu dugg ci bàmmeelam duñ ko suul sax waaye mu nekk fa ba yàqu moo tane ñu ne wax ngeen dëgg moo gën lañ jotoon def ci doole dese ci doole lañ gasee ay bàmmeel xanaa gën nañoo sonn bi ñu paree nag ne las dëgg mënatuñ dara ba yàgg Abdul Muttalib moo tëdd ci coono boobu ndax lu ñu sonn sonn na lu ñu toll ba yàgg jug taxaw ne mane ne yéen waa Quraysh gor du toog di xaar dee day dem ba dee dab ko waaye lii rafetul mag ñu toll ni ñun tëdd di xaar dee te xamuñu ñëw rafetul nañu dox dem ah mag ñëpp nag wax nga dëggam ndax itam toog xaar dee dafa métti parce que li ngay yëg yaa ngi yëg te deewagoo ndax buñ la jamoon benn jam sax nga dee benn yoon ñu xam ne dégg naka la ne bërit nag jug dégmal dégmal fasam fasam dafa dafa toroote rek dafa toroote tëb rek ñu gis ndox ne tël génn naan bëx bëx bëx moom ndox mi ah ñu ne looloo la ndox looloo la ndox looloo la ndox mu ne leen ndox la ndox la ñoom ñu dawandoo pour dégmal ndox mi mu rocci jaasi ji ne leen nag maa ngi leen di yëgal ne ku ko jege dee de ku ko jege dee bala ngeen a laal ndox mi yéen a may signal ne maa moom ndox mii ak ba ca màkk mu nekk jarul a signé <laughs> jarul a signé jarul yeggali yoon àll bii nga xam ne àll kerte ndang la kii fi mën a may ndox war na la kaa man a may ci ci dëkk ba di di ko di ko jëw nag seen xol naan jinne la rek kii dafa bari chance mu bàyyi leen ñu naan kenn ku nekk naan jël seen waruwaay yi def ci tabaarakallahu ndox ba mu fees ñu naan Euh, euh, ba nekk ay nit ñu ne yoonu xaybar bi nañ ko bàyyi nañ dellu Makka euh, téere yi nee nañ naka la Abdou Moutalib jóge foofu ndox ma ne faraas kenn gisatu ko te xamul fu mu jóge kenn xamul fu mu jëm xam naa ne daal ndox ma ñëwoon na moom attekat bu gaaw la moom juge bu gaaw la ñëw daal ñëw na daal atte leen dem Abdou Moutalib nag bi mu ñëwee waa Makka ñi àndoon ak moom ci délégation bi nettali ko dëkk bi ñu ne kon dafa am lu ànd ak moom lu ànd ak moom du kenn ku dul yonent yàlla Muhammad nuuru nabi ñu dem waxtaan seen biir d'accord ba léegi teen bi moom moo ko moom mais nañ continuer gas ñu continuer nag di gas di gas di gas ba yàgg yooyu ma waxoon ne amrunul jurhum yi moom la kaste woon euh, euh, kaaba gi xaw ma zam-zam génne te mooy ñaari kéwél yu mag yoo xam ne ñu ngi ko euh, ore ñu ngi ko defaree ci or maanaam or boo xam ne duñ koo ruyal ba pare defar ci jëmmi kéwél loolu ñaata kilo la bari na trop ñaari jaasi yoo xam ne mu ngi mu ngi nes nesi lépp en or la ak mbubi koŋ yoo xam ne ni lu mel ni mbuba la mais dañ ko xoobe or ñett yooyu lañ génneendoo waa dëkk bi yuuxoondoo ne alal ji nag ñoo ko moom alal ji ñoo ko moom alal yow yaa moom ndox mi dëgg la mais bi ñuy wax ndox mi waxuñu woon teen bi ndox mi lañ waxoon léegi nag ñoom moom li mu ne leen maa ko moom ñoo moom lii maaka moom coow li bari ñu ne nag léegi mu ne leen daal doy na teraanga ji ëpp na nag moom xam na lool teraanga ji xam na ne ëpp na comme noon la nañu dem rek ci kaaba gi bantale am na kuñ fa teg koo xam ne nii ay bantale ñuy def mu mel ni nii ñuy nattee rek bu ñu nattee jël ay kii ne jëlal ban tur moo génne ñu génne turu kenn ne diwa gañe ñu bantale juróom benni bant benn benn bi ñu bind ci Abdul Muttalib bi ci des mu Abdul Muttalib muy ñaari bant benn bi Kaaba gi beneen bi Kaaba gi muy ñaari bant beneen bi Quraysh beneen bi Quraysh muy juróom-benn yii nag lañ teg dugal ko ne comme juróom-benni cër la Kaaba gi dañ koy sedd cër ndax déggoon nañ ne koŋ mbubbi koŋ yi Kaaba gi moo ko moomoon waa Quraysh dañ koy sédd cër Abdul Muttalib ak benn doomam dañ koy sédd cër. ñu jël ko teg nii nag mooy résultat bi euh, ñaar yi ci ëpp doole nga xam ne mooy ci ëpp poids mooy ñaari bubbi kong yi euh, euh, mooy ñaari kéwél yi ñaari kéwél yi dafa génne kaaba gi moom ko jaadu na mooy cëru yàlla ah ñu ne waa kaaba gi de kenn du xëccoog moom ñoom waa Quraysh toog ñu jekki-jekki ñaari jaas yi génne ne Abdou Moutalib ko moom ñu ne ñaari jaas yi yóbbu naa muñ xëy na kon bi ci des ñun dinañ ko moom ñu génnaat mbubbi koŋ yi Abdou Moutalib moom ko ñu yuuxoondoo daanu ci suuf ña bee bari après nag mu jegi góor gi koo gis ci dëkk bi du ko nuyu sof ba de bari bari wërsëg a bari wërsëg kenn xamul lii lan la mer Abdou Moutalib ne daal lii yëpp dëgg dëgg teranga yi yëpp ku ko dajale sax ceeb topp la ñañ mm. ma wool tëggam ñu wool ko tëgg tëgg bi nag moo jël ruyal yooyu yëpp ruyal ko muy ñaari mbubi kong yi ñaari jaas yi euh, ak tabaarakallah kéwél yi bi mu ko ruyalee ba mu doon benn mu ne ko defaral ma ci bunta bu mag mu defaral ko ci bunta bu mag moom lañ def ci kaaba ga gis nga buntu kaaba ga ba fii may wax ak yow en nord la yooyu la woon jàmm am léegi nag mu gis fu mu romb ñu koy ciipatu cela na nag yàlla man wóor na ma ne Quraysh li tax ñu yàpp ma awma ma rakk ju bokkal ndey ak bàyyi aw ma fi mag ju ma bokkal ndey ak baay te benn doom laa am te ñoom ñu ngi wegee nit ci am doom kon nag nag ma ñaan maa ngi lay ñaan boo ma mayee fukki doom yu góor dinaa rey kenn ki jaamoo la ko loolu laa wax ne wax na lu ëpp yàlla nag ne ko comme yaa wax loolu dinaa la ko may léegi may ko ay jigéen ñu am ak moom ay doom bi fukkeelu doom bi juddoo nag bi abdullah abdullah bokk na ci doom yi gën a ndaw ci jamono yooyu waaye nag moom ak xamsatu moom ak abbas ndax ñu bari dañ abdullah mooy cat déedéet moom ak ñële ndax boobu ñoom juddooguñu sax muqawim ak ziraar ak la ak xaydaaq doomam lañ yoo xam ni nii gudduñu fan torop ala kulli xaalin mu tëddaat nag guddi la ko feeñu woon ci gént gi naan kan demal euh, gasi ji Zumaazim ak baratu moo ko feeñuwaat nag nag aw fi lazi ahadta hmm. na nga matal kóllëre giñ la waxoon nag ngan kóllëre mu ne waaw yaa waxoon ne boo amee fukki doom di nga rey kenn ki jaamoo ko yàlla mu mu yeewu sëlëm kanam gi uti ji giléem euh, giléem gu mag rey ko ne yàlla jox naa la ko tëddat yàlla euh, loolu feeñu ko ne bi ngay wax waxoo woon giléem nit nga waxoon yàlla nag day testé nitam mu yeewu naan aus billahi min shaytaani nit kan moo ko mën a rey tëddaat ñu ne ko aw fi lladi la nga waxoon def ko mu yeewu nag woolu ay euh, ay soxnaam ne mbir nag dafa am laata ma leen xam dama fi wéetoon ñaanoon yàlla mu may ma fukki doom yu góor yéen juróomi jigéen ñii nag yéen leen jur ma bëggoon kenn ku ne nga xam ne sa doom mën nañ koo rey bés ndax maa ne woon bu may fukki doom dinaa rey kenn ki jaamoo ko yàlla te comme yéen moom doom yi dinaa leen ko yëgal waaye problème bi mooy juróomi do juróomi jigéen ku ne am doom kan nga yàpp yow bay jël doom naa nga yow sa doom la ñu rey xam nga coow dina am mu ne lenn moo mën a nekk nag léegi dañuy bantale ku ku ku mu ci dal nag ci sa doom nga xam ne yow la ñuy rey sa doom si nga xam ne presque doomu baayam la ndax Maxzum ibnu Yaqzata ibnu Murra moo ko jur mm-hmm. ibnu Kilab ca ay doomi baay lañu Euh, muy Faatimata al-Maxzumiya Faatimatu moomu nag bi ñu bantalee moom am na ci góor ñii am na ku ñuy wax Abdul Manaf mooy euh, euh, Abi bi ñu xam am na ku ñuy wax Muqawwim am na ci ku ñuy wax Abdullah mi caatam bi ñu bantalee bant bi génn ci Abdullah ñu yuuxu ne ëpp naa def ñu ci Abdullah ñu bantalewaat mu dalaat ci Abdullah Abdul Muttalib ne c'est fini ça dama koy rey ji yaayam jooy borom yi mbokk la nag Faatimatu bii bàjjen la ci ki jur Abi Jahlin Abi Jahlin nii nga xam ne Amr ibnu Hisham la tuddee Hisham Faatimatu bii mooy bàjjenam kon ci giir gu mag la bokk Abdul Muttalib nag bi mu téebee ci loxoom jëm Isaaf ak ila pour rey ji kooku comme niñ naroon rey ji maam Ismaila Jubayru boobu Ibnu Nawfal moo ko dogaalewaat kooku ko sonaloon doomu bàyyam boobu ne ko foo jëm nii mu ne dafa am misère bu ma misère woon wax a wax a wax ba àggal te ko daal ba daal moom laay defi nii góor gi ne ko ba noonu nii nii da ngay dem rek lay ji xale bi noonu du dool du am du sotti mukk mu nekkoon ko lu tax xanaa juruma xale bi mu ne ko déedéet problème bi mooy yow yaa yilif màkk te boo ko xësee def ku fi amati fukki doom par force da rey kenn ki ngir di la jéem a ci sa sunna bari na lu nit tàmbali bu xamoon ne ñi kay def ci gannaawam dañuy bari du ko def mu ne léegi nu may def mu ne ko yomb na nañu delluwaat xaybar fañ doon dem ca jotuñoo yegg bu ñu demee ci kaahinatu bani saadin ñu laaj ko moom dinañu orienté ñu ànd waajal yoon bi nag yoon bi yàlla dogal ñu yegg ba ñu yeggee nuyoon teg soxna si fekk ko mu ne ci xaal téere yi nee nañ ci xaal la nekk waxul ak ñoom sax ñu nekk ñii waa Màkka lañ mu ne leen dem leen dem leen ba suba ba sama taabii bi ñëw mooy li may inspiré junneem ji ñoom ñu dem fanaan ba ci suba ko mu ñëw nuyu leen ne waa Quraysh ñoo ñëw nii mu ne waaw nuyonteeg ñoom lu xew ñu nettali ko li xew ba agsi ci bant bi dafa génn ci Abdullah ba ñu waroon ko rey mu leen lenn rek laa leen sama taabii bi ñëw na fi léegi mais lenn la leen lañ leen di àttee yéen bu nit rayoon nit ci yéen lan ngeen di laaj dommage ay intérêt ñu ne ko ñun de ci bu dee ci ñun dinañu laaj fukki gëléem fukki gëléem koo ko jox ay mbokkam mën a muñ mu a waaw kay léegi nag da ngeen jàpp ne kii dañ ko waroon a rey mais jote leen ko seen yàlla yi wala seen borom bu màgg bi fukki gëléem yooyu ndax dina ko nangu bu ko nanguwul nag dolli leen ci yeneen fukk te xam ne moom du n'importe kii bu ko nanguwul dolli leen ci yeneen fukk bu ko nanguwul dolli leen ci yeneen fukk bu ko nanguwul dolli leen ci yeneen fukk di dolli nag ba ba muy nangu bu nangoo nag après ngeen soog a def ki xamul nag dina foog ne ay xërëm la amal affaire fekk yi fii yàlla la de yàlla mooy def tasarruf noonu yàlla de moo jàngal ku jigéen kooku pour mu wax leen lool itam mu ngi ci jublu xamal leen valeur ki ñu war a rey ne du n'importe kii ñu dem bi ñu demee euh, waxtaan ak waa dëkk bi góor gi génn fukki gëléem teg ñu bantale mu dal ci abdullah égal abdullah lañu war a rey ba tey borom bi d'accordagul ñu ne neewoon na bu dalul ci moom nañ ci teg fukki gëléem ñu dajalewaat fukki gëléem teg ci ba bantalewaat mu dalaat ci abdullah ñu dajalewaat fukki gëléem tegaat ci trent mu dalaat ci abdullah mbooloo mi yuuxoondoo ne abdul mutalib yaa ñu indil ba bii problème gëléem yi ñu nar a sacrifié xajoon na ci ñun mu ne dolli leen rek ñu dolliwaat yeneen muy quarante gëléem mu dalaat ci abdullah ñu ne lii lañ doon wax mu ne dolli leen ñu dolli juróom fukki euh, fukki gëléem muy juróom fukki gëléem ñu tegaat mu dalaat ci abdullah ñu ne xëy na yàlla jee ñu mere dañ la jëpp yow loo fii misère lan ngay misère bari problème abdul muttalib jugeel fii jugeel fii loolu lañ ko wax fii parce que yaa tee yàllay nangu mu dem ca kaaba ga toog fa di jooy ñu jaamu boroomam ñu jëlaat yeneen fukk tegaat muy soixante gëléem yi euh, yëf yi dalaat ci abdullah ñu yuuxoondoo fatimata bintu euh, fatimata al maxzumiya takk ndiggam ne doom ju am ndey am na baay doom ju am baay itam am na ndey man may yaayu abdul mutal euh, abi talib dem ci banu maxzum ne leen loo leen am ciy gëléem kaay leen dimbalee ñu dajale seeni gëléem jox ko mu jëlaat fukki gëléem teg ci muy soixante-dix yëf yi dalaat ci abdallah ñu jooyoondoo ñu jëlaat fukki gëléem teg ci muy quatre-vingts giléem mu dalaat ci Abdallah ñu ne lii xam pexe pexe jeex na ci xamatuñu nu ñuy def ba yàgg ñu ne bu leen bu leen naagu dolli leen ñu dajalewaat fukki giléem teg ci muy quatre-vingt-dix bant bi dalaat ci Abdallah ñu ne pexe amatu ci li fi jotoon a des ci giléem presque jël nañ ko ñu mujjee dajale la fa jot a des ba amaat yeneen fukki giléem teg ci ba muy téeméeri giléem dóor bant bi dal ci Abdallah da mu dal ci gélém yi téeméeri gélém ñu sarxooleendoo yuuxoondoo waa dëkk bi yépp abdullah dégg abdul muttalib dégg ka ca kaaba ga mu nekkoon di jooy dellu si ne lu xew ñu nekk alhamdulillahi rabbil alamin bante bi dal na ci gélém yi téeméer lañ am mu koy soog a am mu ne ko mu ne leen wóoruma essayé waat leen ñu ne ko bul ñu indi problème coono bi ñu daj doo ñu ko indi laat mu ne déedéet maa waxoon ak yàlla yéen waxu leen woon ak moom ñu ne wax na dëgg ñu defaat dóoraat beneen nit ñee ngi lox ngir bañ gàcce am bi ñu dóoraatee mu dal ci giléem une deuxième fois Abdul Muttalib jooy ne nag yéen mbooloo mi boo leen bëggee sama xel dal dangeen ngeen koy defaat une troisième fois mu ñoo ko yow koo foowe nga bëgg koo foowe nga bëgg lii bu bu nju euh, euh, bu affaire bi njuujee fu ñu mu ne faw ngeen def ko ba ma xam ne xat radiya bi ñu defaat ko une troisième fois mu dalaat ci gëléem yi ñëpp su xam na nag yàlla la xam nga lii bu doon tàndute ak tombe xam nu def trois fois abdu abdu mutalib ne inxuru almia la ngeen rendi gëléem yi téeméer yëpp loj leen ko te bu leen tere kenn moo xam góor walla jigéen walla picc walla janaaw ci yàpp yi ndax maa ko def hëdd yu ci borom bi subhanahu wa taala ñu rendi yi ñu ngi tooñ ne bu fa njaayeen yi nekkoon bés boobu dinañu war a bég yàpp wu tollu noonu te kenn moomu ko lu ay bëgg a jëlal te ñoom am nañu ay système yoo xam ne dañuy jël yàpp du yàqu nag dañ koy seel kaar weer ka ba mu wow kom mën naa dem ak ñoom ay at ñu def noonu yàpp bi <clears throat> Abdul Muttalib nag sant yàlla bi mu sante yàlla ci loolu ba dellu nag ca kër ga ne Fatima al Maxzumiya ak Abdullah Abdullah kot comme nattu bii dal na ko il n'a que dix-huit ans waaye dama bëgg a utal ko soxna dama bëgg a utal ko soxna parce que lii xale bu toll nii natt bu toll nii dal ko damay bañ bu répété wu waatee musiba xew mu ne ko d'accord naa fan lañ jëm mu ne ko sama maam bu ñuy wax xusa yi amoon na frère bu ñuy wax zuhratu njabootam ngi nii yaru lool baax lool muy awlaadu zuhra falaa bëgg a dem jël nag xale boobu muy Abdullah di doomam doon ko yóbbu ci zuhra yóbbu googu mu koy yóbbu nag <clears throat> pour may ko soxna ci la leer gi yàlla jële woon ësël <clears throat> topp kaag moom topp kaag moom ba agsi fii ci la war a gane si àdduna ci sëy boobu ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla na yàlla fayal ñu ñooñu ak ñi ñu jàngal lii bi maxdi fadlihi wa juudihi wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu